ñu ngi dajal donte oto yu ndaw lañu doomu aadama ñoo si nekk ñu bàyyi ci xel donc ñu xoolaat encore une fois dañuy ñuy defaat ak suñu mbokk chauffeurs yi mbokk transporteurs yi pour ñu yokk karange yoon wi karange chauffeur si ak oto yi afin lu mel ni bañati fi am ñu ngi jàll journalistes yi yëpp ak ñu nekk ci euh, média yi euh, vraiment di am tiis bu méttee métti nag ci bés bi daanaka sax arrêté nañ lépp luy folklore ci étape bi nii ndax gis ngeen diggante Tamba ak fii daanaka bon amul benn yongu yëngu mm. euh, bu ñu yeggee Kédougou tam noonu lañ koy defee